يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضري فلتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر كون ني نيو تاي تي كونتيني فيري بن دون فيري تيري بي دي بغية المستفيد لشرح منية المريد بو التجاني بو مولانا العربي ابن الصائح مشرحة نظم التجاني ابن بابا العلوي ني وون باتاي تي الجزء الاول تي مطالب يي tey ñu war a commencé ci page 122 mooy al matlabu raabi fi badi ma yaxtassu bil muridi min aadabi suxbati wal uxuwati wa bayaani ma yalzamuhu min al wafaai wa kamalil futuwati ginnaaw bi nga xam ne jeexal nañ al matlabu saalis tey ñu ñëw ci almatalabu rabi mooy quatrième sàkkuteef bi nga xam ne moom lay bëgg ku nekk xam ko avant ngaa jëm ci téere bi wala nga ni sax quatrième sujet wala quatrième dégg nga thème dégg nga wala chapitre bu muy traité mu def ko fi baadima ci lenn ci la nga xam ne yaxta su day jagoo bil muridi ci taalibe bi min aadabi soxbati ci tegginu ànd ci wàllu yàlla wal uxuwati ak mbokkoo ci yàlla wa bayaani ma ak leeral lenn ci la nga xam ne yàlla mu war na ko moom taalibe bi minal wafaa ci matal wa kamaalil futuwati ak matug mbaax taalibe bi nga xam ne aspirant la mi ci tariqa bi nekk na ci yoon nitu yàlla yi teggin yi ko war a digganteem ak ay mbokki taalibeem <clears throat> ak leeral lenn ci li nga xam ne war na ko ci matal boo xasee bu tudd uxuwatu tudd suxbatu tudd nga ay tudd nga ahd te kon soo ko tuddee rek wafaa u na ñëw kóllëre foo ko tuddee foog ñu matal ko ak nan lay nekkee ku baax ku koo xam ne ñépp a koy accepté eh, dina mën a jëflanteek ñu bari bokk <clears throat> moom Mawlaana al Arabi ibnu Saih mu wax ne laa xafaa amut benn nëbbu ana xuquuqa suxbati ci ne aqu ànd ci wàllu yàlla wala uxuwati ak mbokkoo ci wàllu yàlla wa aadaabaha ak ay tegginam alaamaa ca la nga xam sa yu bayeenu dees na ko ci lu jege insha andem soob allah allahu yàlla taala yàlla mu koy mi moom daal xuquuqa suxbati ak uxuwa min azamil xuquuqi mi ngi bokk ci gën jaa màgg ci ay àq waa wa aakadil aadaabi te bokk ci gën a feddaliku ci ay teggin ishiya ndax moom mbokkoo ak ànd ci wàllu yàlla al mooy ñoŋu ba te mooy protection ba fi madaari ji sayri ci yéeguwaayu aji dox jëm ci yàlla wa suluuki ak ci sóobu yoonu nitu yàlla yi ilaa xadrati rabbil arbaabi jëm ci peeyu yàlla mi nga xam ne mooy ki moom ñi am dara ñépp buur yépp yàlla mooy seen buur moo leen moom wa xusuusan rawatina fi tariqatinaa ci suñu tariqa bi haasihi bii le te mooy al ahmadiyati ak tijaaniyati tariqa bi nga xam ne koj xoju seydi ahmadi tijaani la maanaam na cheikh mooy sëriñu tariqa tijaan li qawli seydinaa ngir waxu suñu sëriñ suñu sang seydinaa cheikh radiya yàlla na gërëm allahu yàlla anhu ci moom seydinaa cheikh wax ji mu wax ne maniptuliye koo xam ne dañ koo nattoo bi tadyi'i xuquqil ixwaani ci muy neenal ak mbokki taalibeem ibtalaahu dana ko nattoo allahu yàlla taala yàlla mu kawe mi bi tadyiil xuquqil ilaahiyati ci muy neenal aqu yàlla yi Seydina Cheikh radiallahu taala anhu nee na képp koo xam ne yàlla nattoo na ko muy mu ne dafay neenal aqu mbokku taalibeem yàlla dina ko nattoo mu dem ba neenal aqu yàlla yi li nag wax ju am solo la mu ne waxat samiatu dégg naa baada ashaabihi kenn ci ay saxaaba Seydina Cheikh radi yàlla na gërëm allahu yàlla anhu ci moom dégg naa ko yaqulu muy wax ne samiatu dégg naa sayidina suñu sang ba wa mawlaana te di suñu kilifa a cheikh sëriñ ba te mooy Seydina Cheikh radi yàlla na gërëm allahu yàlla anhu ci moom dégg naa ko yaqulu muy wax ne inni man daal seydinaa Cheikh la kathiran ma ahum mu bëriwaan na lu ma yittewoo bi wadd ay mu ëllëfin ci teg bind sos ab téere buñ taalif fi aadaabi tariqi ci tegginu yoonu nitu yàlla yi nee na moom Mawlaana al-Arab ibnu Saaih nee na Seydina Cheikh dafa wax ne képp koo xam ne yàlla nattoo na ko muy neenal ak mbokku taalibeem yi mu yàlla dina ko dimbali maanaam ya képp koo xam ne ko muy neenal aqu mbokku taalibe yi yàlla dana dem ba nattoo ko muy neenal àqu yàlla te lii neenal àq rek la wax waxul nga saboote leen waxul nga weer leen waxul nga jiiñ leen mbir waxul nga toroxal leen yépp waxu ko li muy wax rek mooy nga neenal seen àq mu ne loolu rek boo ko defee yàlla dina la nattoo nga mujje neenal àqu yàlla yi kon nag looy xalaat ci yeneen yi mu ne dégg na sax kenn ci taalibi Seydina Cheikh radiallahu taala anhu mu wax ne dégg na Seydina Cheikh mu ne moom sax Seydina Cheikh bëggoon na lu bari taarif benn téere boo xam ne da ko def ci tegginu yoonu nitu yàlla yi loolu nag al mawlaana al arabnu saayix nee na loolu Seydina Cheikh li tax mu def ko mu ne tanbihan ab yeete la maam li tax mu wax loolu ne bëggoon na taalif benn téere ci tegginu yoonu nitu yàlla yi effectivement parce que Seydina Cheikh boo xoolee moom maanaam nekkutoon koo xam ne ay taalif da ko yitteloon moom Seydina Cheikh kon su demee bay wax ne lii daal bëggoon naa ci taalif téere en réalité dafa la bëgg a wan loolu ni mu nekkee lu am solo ak ni mu amee importance moo tax mu ne tan bii xen daf ko def ngir yeete min hu ci moom Seydina bu bàyyi ko ci moom Seydina Cheikh radiya yàlla na gërëm allahu yàlla an anhu ci moom ala anna al adaba ci ne teggin min ahamil muhimmaat mi ngi bokk ci ëpp solo ci yu am solo yi muhimmaat mbir yu important yu am solo yi teggin bokk na ci yi ci ëpp solo wa aakariha te moo ci gën a fet bokk na ci yi gën a feddaliku fi tariqi ci yoonu nit yàlla yi waa anna manta masaka ak ci ne ko jàppandiku bi bixii ci moom teggin fii haa ci yoonu nitu yàlla yi faqat masaka kooku de jàppandiku na bi sababi ca e, sababu maanaam la ñuy jaar pour am dara al aqwa bu gën baa dëgër wala xabli ak buum ba al wasiqi bu gën bee dëgër ba tey as sabab itam day day firi buum maanaam jàpp na ci li dëgër rek wali xaasa looloo tax mu ne moom mawlaana al arabinu saaya jaaltu ma def xaasal matlaba bi le sàkkuteef taabiyaan bi la sujet ma def ko taabiyaan mu topp lil mataali bi ci yeneen sujet yi nga xam ne xablahu ñoo ko jiitu woon ko asartu ma gënal ma jox priorité an nag ci mu nekk kat taxsili mel ni ki luy amal li masaaila ci ay masalaam wat tatimati ak luy mottali wat takmilati ak luy matal fa aqulu ma wax wallaahu te yàlla kese al mustaan mooy ki ñuy sàkko ci moom dimbal wa alayhi te yàlla képp al tukulaanu ci moom la ñuy wéeru wa alayhi te ci yàlla rek at la nekk at tukulaanu wéeru ga La ilaha amul ben bur bu ñuy jaamu tek ko ci deug ghayruhu ku nek ci kudul yalla wala xayra te amul ben yu illa khairuhu ludul yi yiwam mom yalla maulana rabbi saayix wax ne euh, sidna cheikh kon bi nga bi nga gisee mu wax ne dafa bëggoon taalif ab téere taalif ko ci tegginu nit yàlla yi ci yoon nit yàlla yi mu ne loolu sidna cheikh da ko ngir yeeñu rek ba ñu xam ne teggin bokk na ci ëpp valeur te ku ko ku ci japp si di nga japp ci lu dëgër lo xam boko bayiwul mu àggale la fa nga jëm motax maulana mawlaana rabiul saayix motax ma jël euh chapitre bi matlab bi mm, nek mu motali yeneen matlab yi nga xam ñoko jitu won motax mu ne ma ngi waxtu ci yalla rek lay sukkandiko te amul benn buur bu ñuy jaamu mun te jaamu ga ñu tek ko ci deug lu dul yalla te amul benn yewu bu nit di am lu dul yewu yalla leneen lo am lu dul yewu yalla lool lool du dara mu ne i'lam xamal anna darajata suxbati ci ne darajay ànd ci wàllu yàlla wal uxuwati ak mbokkoo ci indallaahi ci yàlla taalaa yàlla mu kowe mi darajatun ab daraja la sharifatun bu tedd wa martabataha te martabaam niveau wa mina tariqi ci yoonu nitu yàlla yi martabatun ab niveau la saamiyatun bu kawe munifatun bu yëkkatiku xad ixtaaraha tànn na ko wa raxaba fiiha mu xemmemloo mu xemmemloo ca wa raxabatam xemem loo fiihaa ci moom uxuwatu ak suxbatu wa asaraha tem gënal ko jam un mbooloo mi na salafi ci trois premières générations yi ñëwoon ginnaaw yonente bi sallallahu alayhi mooy dawal bu jiitu ba wa tabaahum te topp leen ala zalika ci loolu al jammu mbooloo al xafiir bu bëri min jamaahiril xalaf min jamaahiril xalaf ci mbooloom ñi wuutu dégg nga asalafu al alxalaf mooy ñu ñëw ci seen ginnaaw ñoom salaf yi mima stanadu bokk na ci lañ sukkandikoo lahu ñeel ko fii ma zahabu ca lañ dem ilayhi jëm ca moom min ixtiyaariha ci tànn ko wastanasu ñu wéttaliko bihi ci moom li ma tamaduhu ca lañ sukkandikoo min isaariha ci gënal ko maara aw lañ gis min anna allaha ci ne yàlla taala yàlla mu kawe mi man na dafa xéewalal ala ahlil iman ci ñooñ gëm yàlla xaysu jaalahum ci foo xam ne def na leen moom yàlla ixwaanan ñu nekk ay mbokk fa qaala ba yàlla wax subhaana tudd na mag sellam wa taala te kawe na yàlla wax ne fa asbaxtum ngeen xëy ngeen mujj bi ni'matihi ci xéewalam moom yàlla ngeen mujj nekk ixwaan di ay mbokk waqaala ba wax ba tey waqaala te wax ba tey subhaanahu tudd na mag sellam wa taala te kawe na moom yàlla mu wax huwa alladi moom yàlla mooy ki nga xam ne ay yedam ay yedaka moo la dëgëral yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nasrihi ci ndimbalam wa bil muminina mu dimbalee la itam julit yi te wa allafa mu tàpp moom yàlla bayna xulubihim ci seen xol yi Mawlaana al Arab ibnu Saayix nee na euh, mu ne euh, boo gisee kawe gi darajay maanaam ànd ci wàllu yàlla ak uxuwatu kawe gim kawe martabam nekk martaba bu kawe moo tax ñi nga xam ne ay salafu saalix la ñi jiitu woon ak ñi topp seen ginnaaw yépp euh, def ko mu nekk seen priorité mu ne bokk na ci nag li ñu sukkandikoo gis ne moom dégg nga ci maanaam tektal fañ tegtaloo ba gis ne moom teggin ci maanaam ak uxuwatu ak soxbatu fañ tegtaloo ci ci alquran gis ne dafa nekk lu am solo lu ñu war a bàyyi xel mooy yàlla def ki nga xam ne def na julit yi ñu nekk ay mbokk te moom yàlla moo ko wax ndax yàlla moo wax ne fàttaliku leen bi nga xamee ni da ngeen nekkoon ay noon moom yàlla fexe ba maanaam tàppe seen xol yi ngeen mujj nekk ay mbokk mu ne kon foofu comme que yàlla tudd na ixwaan ci alquran kon kay al uxuwatu fi diini kon day am valeur ndaxte dalilam ñu ngi ko jëlee ci alquran mu ne itam yàlla wax na ne moom yàlla moo dimbali yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci ndimbalam moom yàlla ak julit yi waaye yàlla fexe ba tàppe seen xol ñoom julit yi ñu nekk benn kon dugal na ba tey mbokkoo mu ne kon lii ñoom ci dañ sukkandikoo ba gis ne mbokkoo ci wàllu yàlla ak soxbatu yàlla lum saxal la ci alquran def saxaaba yi ñu nekk ay mbokk tàppe seen xol yi ñu nekk benn ñoom jullit yi euh, kon nag lii luy wone la ni kon teggin dafa nekk loo xam ne maanaam uxuwatu fillaahi ak asuxbatu loolu dafa nekk loo xam ne ci yaxu alquran la nekk dafay bañ mooy ñu yaakaar ni dañuy wax noonu rek ay ay principe yoo xam ne jëlewuñ ko fenn mais lii ci alquran la sax saxaaba yi nii lañ meloon mu ne faqat dalla tegtal na haasihi l ishaaratu bile junju alkarimatu bu tedd ala ann suxbata ci ne ànd wal uxuwata ak mbokkoo ci wàllu yàlla loolu minatun ab xéewal la azimatun bu mag wa nimatun te di ab xéewal ba tey jasimatun bu rëy imtan na xéewal na allahu yàlla taala yàlla mu koy mi bihaa ci moom alaa ci képp koo xam ne rek yasha u sot na ko min ibaadihi ci jaamam yi al muminina ñi di way gëm al mutahabina ñi di way bëggante fii jalaalihi ci màggaayam moom yàlla al mutawaaxina ñi di way mbokkoo fi talabi mardaatihi ci sàkku ngërëmu yàlla wal wusuuli ak àgg ilaa xadrati kamaalihi ci péyu matam moom yàlla fi zalika te nekk na ci lii kama la yaxfa comme nim nëbboowul nekk na ci raayatul xassi daytalu ñaax alayha ci moom dégg nga ak uxuwatu te mooy ànd ci wàllu yàlla wa targi bi ak xemem loo fiihaa ci moom ba wa nat ak soppaloo rit ilayha jëm ci moom waxat dal tektal na as sunnatu sunna al mutahharatu bulab ala zalika ci li aydan batay, tey mu ne comme ni nga xamé ni non la ko alquran indi sunna yunus bi salallahu alayhi wasallam non la ko te non la ko fa fi duril mansur, nek na ci tafsirul quran bu jalaluddin as-suyuti bi tuddu ad durul mansur waxna ne ibnu mardawayhi serigne biñu wax ibnu mardawayhi solo na an sa'd ibnu muaz جري تي سعد بن معاذ قال من قال وخنا رسول الله يرنت يالا بي صلى يالنا جل الله يالا عليه تي موم وسلم تي يالا سلم تي موم نانا يرنت صلى الله عليه وسلم دا فا سعد بن معاذ موكو نتالي يرنت بي الله عليه وسلم نانا اذا كان سو نيك يوم القيام يوم القيامه يوم القيام بوس يوم القيام سو فكه نيك نفا انقطع دي di dog al arxaamu mbokk waqalat te daal di néew al asbaabu ay sabab yu ñuy jaar pour mucc wa zahabat te dem al uxuwatu eh, eh, maanaam mbokkoo ci wàllu yàlla man dafa ne isaakaana su fekkee nekk na yowmal qiyaamati maanaam yowmal qiyaam bu jotee wala boo koy firi sax mën nga isaakaana su jotee yowmal qiyaamati yowmal qiyaam in qataat day dog al arxaamu mbokk waxqalat te néew al asbaabu ay sabab yu ñuy jaar ba mën a mucc ci mbugalu yàlla wa zahabat te dem al uxuwatu mbokkoo illa al uxuwatu lu dul mbokkoo fillaahi ci yàlla taala yàlla mu kawe mi mu ne wa zalika te loolu qawluhu mooy wax jëm wax moom yàlla subhaanahu tudd na mag selam wa taala te kawe na yàlla wax jëm waxoon ne al axillaau yowma isin baaduhum bi baadin aduwun illa al muttaqin kon nag yalla lim waxon ci alquran ne mbokk yi ñi nga xamne ay mbokk lañ de nga baaduhum li baadin adduhum ilal muttaqin ñi nga xamanteni euh ay xarit lañ won dañuy muju nek ñom ñep nek ay non bam dess des ñi nga xamne dañoo ragal yalla dañoo ragal yalla boobu moy ñal moy ñi nga xamne dañoo andon ci walu yalla motax mu ne saadu nu muaz nee na bi sallallahu alayhi wasallam sallam na bu yom qiyam jete affaire mboko day jeex ay sabab yu ñuy jaar pour muccu ci dara di wut ay sabab day jeex mboko day jeex moy moy lien de sang waye mu ne ben mboko moy des moy mboko ci walu yalla mu ne lolu moy firi ay bi yalla wax ne ñi nekkon ay xarit bu yomal qiyam jote ñom ñep dañuy muju nekk ay ennemi bam dess des ñi nga xamne dañoo ragal yalla mu ne nak bam dess des ñi ragal yalla ñoñu moy bam dess des ñi nga xamne dañoo bëggante won te yalla tax mu ne wa fi wasiyati sayidina omar il nekk na ci ndénkaane sayidina omar saxaabi bu mag boobu al faaruq ki nga xam ne mooy taqale diggante dëgg ki caaxaan al musna alayhi mooy kañ taggee ne bi anal xaqa ci ne yàlla mi dëgg yantiqu day wax ala lisaani omar ci lam ñu sayidina omar wal mamurite mooy kañu digal kañu digal bil iqtidaa ci roy bihi ci moom fi qawlihi ci wax ji mu wax moom yonent bi salla yàlla na julli allahu yàlla alayhi ci moom wa sallamata yàlla sal yàlla sëlmal ci moom yonent bi saa sallam wax ji mu wax ne iqtadu na ngeen roy billa zeyni ci ñaar ña nga xam ne min baadi danañu nekk ci sama ginnaaw te mooy abi bakrin seydna abu bakrin siddiq ah maa ngi tudd abdullah ibn abi quha ibn abi quhafata wa omara ak seydna omar radi yàlla na gërëm allahu yàlla anhu ci moom mu ne euh, nekk na ci dénkaane bu Seydina Omar dénkaane woon avant moo indi dénkaane bi nag mu ne Seydina Omar bi nga xam ne moom mooy alfaaruq dëgg caaxaan moo koy tàqale ba mu leer mooy ki nga xam ne moom la yonent bi saai sallam tagg wax ne yàlla de day waxee ci làmmiñu Seydina Omar mu ne mooy ki nga xam ne yonent bi saai sallam digle nañu topp ko ndax yonent bi saai sallam moo wax ne na ngeen topp sama ginnaaw ñaar ñii te mooy Seydina Abubakar ak Seydina Omar mune ne dénkaaneem bi daf ci wax lii moy waji ñew mune alayka maa ngi lay denk bi ikhwani sidiqi ci mbokki deggu taish bob deug dund fi akna fi fihim ci sen wet fa innahum ndax ñom zinatun tar lañ fi raxa ci nata nga jamono ji nga newe ci feex ak jamm ak euh, am li nga bëgg waye wa uddatun préparation la fil bala ci natt bu naree ñew waccay la ci bu ñew Seydina Omar ibn Khattab nee na maa ngi lay dénk ay mbokk yoo xam ne mbokk yu dëggu lañ nga dund ci seen wet ndax ñoom ci jamono ya nga nekkee ci jàmm ak ci naataange ñooñu taar la ñuy nekk te jamono ji nga xam ne yaa ngi jëm ci natt itam ñoom danañ nekk benn waajtaay benn préparation boo xam ne boo leen amee boo moytul boo duggee ci balaa bi doo sonn wa tudd na ba tey fil awaarif yi ci awaariful maarif an Seydina Omar yu jëlee ci Seydina Omar aydan ba tey radi yàlla na gërëm allahu yàlla anhu ci moom annahu ne moom kat xaala dafa wax law anna rajulan su fekkoon ab waay saama dafa woor an nahaara bëccëg wa qaama mu taxaw al layla guddi wa tasaddaqa mu saraxe wa jaahada mu jihaad ci wàllu yàlla walam yuhibba te bëggul fillaahi ci yàlla walam yubrit te bañul fillaahi ci yàlla maa nafaahu du ko jëriñ saalika loolu mu def yépp Seydina Omar ibnu Xataab dafa wax ne ñu jëlee ko ba tey ci awaariful maarif mu ne nit ki su fekkoon day woor bëccëg jaamu yàlla taxaw di julli saraxe jihaad te bëggul ci yàlla bañul ci yàlla itam mu ne kooku loolu du ko jëriñ dara <coughs> loolu du ko jëriñ dara loolu lu mat a bàyyi xel la mu ne ndax ñu bari ñu ngi ci maanaam parce que lii am ab en réalité kiy julli di woor te mbokkowul ci wàllu yàlla kooku jàppul nekkoon am na ay mbokki jullit yu mu nekkal moo tax mu dellu wax ne wa min lawazimil xubbi bokk na ci taqoog cofeel fillaahi ci yàlla taala yàlla mu kawe mi almuwaaxaatu mooy nga mbokkoo fii ci moom boo ne bëgg nga ay nit da mbokkoo ak ñoom da di bokk mbir mi <coughs> loolu am solo la ndax bari na ñoo xam ne dañuy nekk ak ay nit parce que mbokkoo day fekk yow man li ma am bëgg naa nga am ko li ma am bëgg naa nga am ko waaye bu fekkee mbokkoom yépp mooy ne yow nañ nekk ay mbokk nii rek mais yow li nga yor li ma yor man ma téye yow li nga yor nga jox ma ko wala li ma yor am na solo mais du ma la ko jox na su ma la ko joxee da nga koy xam ñu yem ci yooyu du ay mbokkoo moo tax bu ñu waxee xubbu dëgg mooy da ngeen di mbokkoo yéen ñaar wali zalika looloo tax yutlaqu ñuy joyal ahaduhuma benn ci ñoom ñaar alal aaxar ci beneen bi léeg-léeg ñu wax al xubbu léeg-léeg ñu wax al muwaaxaatu benn la dañuy jël benn bi jublu ci beneen bi mais en réalité ñoom ñaar yëpp benn lañ waa rawaa nettali na ba tey moom imam as-Sahrudi fi l awaarif ci awaariful maarif aydan ba tey ci bi sanadihi ci isnaadam mooy muy nettali jëlee naa ci diw jëlee ci diw moom mu àgg ci borom wax ji ilal ustaaz yi jëm ca ustaaz ba abil qaasim al qushayri imam al qushayri annahu ne moom kat qaala dafa wax ne sami'tu dégg naa aba abdurrahman as sulami dégg na aba abdurrahman as sulami yaqulu muy wax ne samiatu dégg naa abdullahi ibnul muallim abdullahi ibnul muallim yaqulu muy wax ne samiatu dégg naa aba bakrin aba bakr at tamastaani dégg na ko yaqulu muy wax ne ishabu na ngeen àndal ma allaahi ànd ak yàlla ishabu da ngeen ànd yàlla fa su ngeen ko mënut fashabu na ngeen ànd maa koo xam ne yashabu day ànd ma allaahi ànd ak yàlla li yusilahum ngir mu yeggale leen barakatu suxbatihi barkay ànd ak moom ilaa suxbatillaahi jëm ci ngeen ànd ak yàlla nee na boo demee ci awaariful maarif imam abu qasim al qushayri nee na dégg naa abu abdurahman as sulami mu ne moom dégg na abdullahi ibn muallim mu ne moom dégg na abu bakar atamastaani dégg na ko muy wax ne na ànd ci yàlla bu ngeen dee dem ci yàlla ànd leen nekk leen ay mbokk bu ngeen ko mënul na ngeen ànd ak ñoo xam ne ñoom ànd nañ ci yàlla yow nekkoo koo xam ne ànd nga kenn ci wàllu yàlla waaye ànd la koo xam ne moom am na mu àndal ci wàllu yàlla mu ne ndax xëy na boo àndee kooku barke barke ànd bi mu ànd ak nit ku ku bokkaloon jëm ci yàlla barke boobu dina ñëw ci yow ba tax yow tam nga mën a ànd ci wàllu yàlla warawaa nettali na fiha ba tey as na ci awaariful maarif ba tey bi sanadihi ci isnaadam ila cheikh yi jëm ci sëriñ ba abi jaafaril haddaad rahimahu yàlla na yërëm ko allahu yàlla taala yàlla mu koy mi ne annahu moom kat samia dafa dégg a cheikh sëriñ ba ali ibn sëriñ bi tudd ali ibn sahl yaqulu muy wax ne al unsu wéttalikoo billaahi ci yàlla an yastawxisha mooy nga weet minal xalqi ci mbindeef yi illaa min ahli wilaayatillaahi lu dul ñi nga xam ne dañoo méngug yàlla ndax fa innal unsa naka wéttalikoo bi ahli wilaayatillaahi ci ñi nga xam ne dañoo méngoo yàlla waxuwa loolu al unsu mooy nga wéttalikoo billaahi ci yàlla <clears throat> nee boo demee ci awaariful maarif ba tey imam as-Sahruradi nettali na jëlee ci sëriñ bi di abu jaafar al xaddaad dafa dégg sëriñ bi di ali ibn sahl wax ne wéttalikoo euh, ci yàlla mooy nga wét ci mbindéef yi tànk isolé woo sori nit ñi doo do wetali ko sa borom mu bañ nak nga baña am bokku taalibe mu la lu nga andak ñi nga xam dañu mengo ak yalla ndax bu wax usulatu am na njëriñ wéet am njëriñ trop waye bo amé mbokk mo xam ci sa walu yalla yeena ngi waxtaan di ci di di di orienté wante lu bari di xew ci seen digënté loolu mo ëpp valeur <coughs> motax mu ne ndax wet bako ibn ibnataay laay sakandari waxee dafa ni uzlatu bo bi yaduuru biha maydaanul fikrati da toog di xalaat ci wàllu yàlla mu day defal taraqi mu ne ndax nit ki su wéetee maanaam bu wéttalikoo wee boog eh, nitu yàlla yi nga xam ne ñoom dañoo méngoog yàlla kooku dafa mel ni rek moom wéttalikoo na yàlla ci boppam wa zakara tudd na ba tey moom imaam as-Sahrudi fiihaa ci awaariful maarif aydan ba tey wax na inna allaha yàlla taala yàlla mu kawe mi awxaa dafa dee ilaa daawuda ci yonti yàlla daawud alayhi yàlla nekk ci yonti yàlla daawud assalaamu jàmm yàlla qaala moom yàlla mu wax ne yaa daawud yow yonent yàlla daawud maa lii araaka lan moo tax ma gis la muntabizan nga sànneeku muntabizan maanaam nga isolé wu yen nekk ku weet nekk ku solitaire qaala yent yàlla daawud wax tontu yàlla ne ko ilaahi yow yàlla xalaytu dama noonoo alxalqa mbindeef yi min ajlika ngir yow fa awha waaye mu deey allahu yàlla ilayhi jëm ci moom yàlla wax yu ko ne ko yaa daawud yow yonent yàlla daawud ku nekkal yaqzaanan di ko vigilant nekkal ko vigilant wartate sàkkul li nafsika pour sa bopp ixwaanan ay mbokk ndax wa kullu xidnin bépp xarit boo xam ne waaye nag wa kullu xidrin bépp xarit boo xam ne laa yu waafiquka du dëppook yow ala masarati ci sama mbég man yàlla lu may bégloo fala tasxabxu bul ànd ak moom ndax fa innahu kooku aduwun ab noon la la ko la yuq si day wowal xalbaka sa xol yu baa iduka te dalay soreel mi nii ci man yàlla nee na yàlla dafa wax yonent yàlla daawud ne ko man daal dama la gis nga isolé wu nekk ku solitaire nekk ku beru ma ko yàlla damaa noonu ak mi dee yëpp ngir yow yene yàlla ne ko nag ne ko nag na nekk ko vigilant te na wut ay mbokk yooyu àndal waaye nag bépp xarit boo gis ne mënoo dëppook moom ci lu ma bégal man yàlla kooku bul ànd ak moom ndax sa noon la te dafay wowal sa xol soril la dégg nga sama xadara man yàlla waaye lii xam nga yàlla bu ko def ab yonent en réalité ñun la ci jublu wali looloo tax kaanati suxbatu mu nekk moom ànd ci wàllu yàlla wa sadaqatu ak xaritoo indal axraari ci gor yi yuraa ñuy sàmmonteeg laxaa ñeel ko minal xuquuqi ci àq ya maa comme na nga xam ne yuraa dañuy sàng dañuy saw dañuy sàmmoo li li uxuwati nasabi ci mbokkuk askan alaamaa xiila ci li nga xam ne wax nañ ko ne as sadaqatu xarit loxmatun liyee la ka loxmatin nasabi comme liyeewu dégg nga askan manam askan nit bo bokke ak mom askan ngeen bokk famille ni ngeen amé lien ci sa walu yalla itam ki nga tan ci sa walu yalla ngeen di and non ngeen amé benn lien bo xam da dana wax ne sax lien bobu mo gën moo mu ne kon ñi nga xamne ay gor lañ deug dañuy samonté ak àqu mboko ci walu yalla comme ni ñuy sambowé ak bi biñ sekk bi dox ci seen diggante ak ki nga xamne bokku nañ ak mom askan mu ne ndax wax nañ ni and xarito ci walu yalla lien la comme lien bi nga lien de parenté la moy luhmatun nasab bal li fi al haqq li deug annaha moy ne mom damir gogu ci kan lay delu mune ani lima ci jublu sadaqat moy kharito wal ukhuwata ak mbokkoo fillaahi ci yalla akadu mo geure a feddali ko xàqan ci aq min nasabi ci mboko askan euh, mune nak kon ci walu yalla mboku ci walu yalla diw sama mboku la ci walu yalla ño and ci yalla mu ne loolu ak yi war sa digganteeg moom sax moo ëpp doole ak yi war koo xam ne da ngeen am li yenn parenté mu ne ba tey qiila wax nañ li baadihim ña lenn ci ñoom ne ko ayuhuma kan ci ñaar ñi ahabu moo gën a bëggu ilayka ci yow ñaar ñi kan nga ci gën a bëgg axuuka sa mbokk maanaam mbokk boo xam ne da ngeen am lien parenté aw sadiquka wala sa sa xarit xaala mu tontu ne innama uhibbu man daal bëgg naa ak yi sama mbokk isa kaana mooy su fekkee dafa nekk sadiqi di sama xarit dañ ñu ko ñaara ngi nii kii dangeen am lien de kii ngeen bokkoo ci wàllu yàlla kan nga ci gën a bëgg mu ne ko man de su ma bëggee sama mbokk bi ma am lien de parenté c'est parce que dañoo ànd ci wàllu yàlla maanaam bokk nañ ay mbir xaala <coughs> wax na a cheikhu sëriñ ba zaruq sidi ahmad zaruq radiya yàlla na gërëm allahu yàlla anhu ci moom dafa wax fi sharxihi ci shara gam doon shara lil waxlisiyati ci dégg nga al waxlisiya dafa wax ne xaala wax na al ulama boroom xam-xam yi ne al qara ak jege ñaale daal qarabataani ñaari jege ñaale la qarabatun akuk jege diini yetu ngi ko jóg diine waxee tam awlaa moo gën a yell minal qarabati ci jege at tiini yeti gee ko jóg ban maanaam boo xam ne dégg nga jege askan la <clears throat> ñaari façon jege moo am ku la jege ci wàllu diine ak ku la jege ci wàllu askan mooy nag ku la jege ci wàllu diine sax moo ëpp valeur wa zakara tudd na ba tey a cheikhu sëriñ ba muhyiddin muhyiddin ibnu arabi alxaatimi radi yàlla gërëm allahu yàlla anhu ci moom tudd na fil futuhaatil makkiya ci téeréem boobu tudd futuhaatul makkiya ne am na shaxsan ne dafa am benn waay boo xam ne jaa daxala dafa dugg ala cheikh yi ci sëriñam fa faawadahu mu partagé moom mu wax ak moom fi maanaa qawlihim ci sensu maanaa wax ci ñuy wax ñoom nitu yàlla yi ne al aqrabuuna ñi nga xam ne e, ñoo gën a jege awlaa ñoo gën a yàlla bil maaruf yi ci lu mbaax ñi la gën a jege ñoo gën a yell pour nga def ci ñoom njekk qaala mu ne fa qaala wax a cheikhu sëriñ bi min gayri tawaqufin ci lu dul taxaw ne ko al aqrabuna boobu mu ne ko ilallaahi ñi gën a jege ci wàllu yàlla lañ wax yaa fulaanul yow diw ndax daf ko laaj ne ko dafa dégg yàlla di wax ne al aqrabuna awlaa bil maaruf gën a jege ñëw gën a yell ci mbaax nga def ci ñoom njekk def ci ñoom lu baax bi mu ko waxee rek sëriñ bi automatiquement mu ne ko ilallaahi maanaam al aqrabuna ilallaahi maanaam ñi nga xam ne ngeen dañoo jege ci yow mais ci wàllu yàlla lañ jege. ni ki say mbokku diine ñoo xam ne da ngeen am lien mu ne ñooñu ñoo ëpp valeur seen mbir gën a jar a sonne intaha wax ji foofu la yam mu am nii lim ci jublu al na mi ngi noonu ñi nga xam ne ñoo la gën a jege ilallaahi jëm ci yàlla ñooñu laa ñoo gën a yell bil maaruf yi ci nga def jëme lu baax ci ñoom min al aqrabina ci ñi nga xam ne dañ laa jege min jihati nasabi ci wàllu askan wa wax na a cheikhu sëriñ ba zaruq sidi ahmad zaruq radi yàlla na gërëm allahu yàlla anhu ci moom dafa wax ne assadaqatu xaritoo min qawaidi diini mi ngi bokk ci ponki diine yi wa duniya ak ponki àdduna ànd ci wàllu yàlla ak xaritoo loolu dafa bokk ci ponki diine ak ci ponk àdduna mun a intaha wax ji foofu la yem <coughs> mu ne wa mimma yushiru bokk na ci li junj ila sharafi manziliha jëm ci tedd nga wàccuwaayam moom uxuwatu wa kamaali fadilatiha ak matuk ngëneelam ziyaadatan dolli ci lu dolleeku alaamaa ci la nga xam ne te dammanat xu làmboo na ko ishaarat ishaaratu haula il alam junju yilee boroom xam-xam yu mag maa mooy la nga xam maa la nga xam ne ijtamadat làmboo na ci moom minal fawaidi ci ay ngëneel al izaami yu màgg wa karaamaati ak ay karama yi tedd nga wal barakaati ak ay barke wal khayraati ak ay yiw al jisami yu mag qala wahna fil jeyshi ci jeyshul kafil bi akhzi sar amman salla ala shaykh tiyani sayful inkar bu sayyidi mahmudu saghir dafa wax ne ma lo xamne nasuhu texte bi mu ngi ni sayyid mahmud saghir dafa ni sumal fawaidu top njeriñ ya al matlubatu yadi yi ñu sàkku mina suhbati ci ànd diiniyatun ay njëriñ la yoo xam ne yu diine la wa dunyawiyatun ak yu wàllu àdduna nit boo àndeek moom di nga di nga jariñu soit ci sa mbiru diine wala ci sa mbiru àdduna ama dunyawiyatu bu fekkee mbirum àdduna la <clears throat> fa fakalintifaay mu ngi mel ni ki jariñoo bilmaali ci alal wal ak daraja te walay sa zalika loolu nekkul min xaradinaa ci suñu jubluwaay fii nit mën nga ànd ak moom mu jariñ la ci sa wàllu àdduna ci wàllu alal <coughs> loolu mbokkoo la waaye njariñ bi ci àdduna la maanaam njariñu àdduna la mu ne nag mu ne nag euh, loolu ñun nekkul luñ jublu fii ñun fii buñ ñëwee di wax mbokkoo ci wàllu yàlla buy jur njariñu dégg nga diine moo tax ñuy wax moo tax mu ne wa ama diin yit su fekkee mbirum diine la nag fa taj tamit day dajaloo fiihaa ci moom axraadun muxtalifatun ay jubluwaay yu wuute ay intérêt yu wuute ñoo ci daje is ndax min haa ci moom mbirum diine rek la nekkee al istifaadatu jariñoo bil ilmi ci xam-xam wala amali ak jëf mën nga mbokkoo ak nit ànd gi nga ànd ak moom mu jariñ la ci wàllu xam-xam ak ci wàllu jëfee xam-xam boobu te pourtant sa mbokk la rek ci wàllu diine min ha bokk na ci al istifaadatu jariñoo fil jaaxi ci daraja nit ki taxasu taxasunan ngir ñoŋu min isa i man ci loru koo xam ne yu shawishu dafa bëgg a jax-jaxal alxal ba xol <clears throat> waaye sudd mu dëdd loola anit anil ibaadati walis jaamu yàlla bokk na ci mën ngaa fekk koo xam ne borom daraja la nga nekk ak moom darajaam jariñ la waaye nit ñu la bëggoon lor sax ak wala ay mbir sax yu la bëggoon lor ngir jax-jaxal sa xol ak dégg nga wan dëdd loola jaamu yàlla loolu du mën a sotti wa min bokk na ci at tabarruku barkeelu bi duaa yi ci ñaan maanaam nit ki ñaanal la nga jariñu ci ñaanam wa min bokk na ci intizaaru shafaati ndégandiku ramb bës penc yi ilaa xeyri zalika jëm ci loolu xarit mën na ramb xaritam bés penc kon yi ay jariñ la yoo xam ne danga koy jëlee ci wàllu diine mu ne intaha foofu la wax ci yem ci aljeysh wa awaarif boo demee ci awaariful maarif ba tey annahu ne moom kat yaqa'u day tabbi bi tariqi suxbati ci yoonu ànd ci wàllu yàlla dana ca tàbbi at taadudu dégg nga dëgëralante wa ak ndimbalante nit di nga ànd ak moom ci sa wàllu yàlla <clears throat> dimbalante am ci ak dëgëralante maanaam ku nekk jàppale moroomam wa tataqawaate muy dëgëree junudul xol bi soldaari xol bi maanaam yi jóge ci xol bi ci ay mbir yu koy dugg ak yu koy génn la tuddee ay junud <clears throat> yooyu day mujj dëgëree ci watas tarixute da cay noppalikoo al arwaaxu ruux ya bi tashàmmi ci fóon maanaam ay ruux buñ nekkee ànd ku nekk day fon ci moroomam xet gu neex ñuy walante wa tatafiq ta dañuy depo fi tawajjuh ci jublu ila al ala jëm ci e, niveau bu gën ba kawé té moy jëm ci walu yalla dégg nga manam dañuy and ñom ñaar waaye seen way yépp xam nañ moy ar al ala moy di xalaat bés bi nga xam ne dañuy ak seen borom ci dégg nga dajewukaay bu kay bobu <coughs> dégg nga waaye du nekk rek mbirum àdduna yu suufe yi wa yasiru te day mujj misaaluhaa misaalam exemple am fi shaahidi ci lu ñu mën a tegtaloowee kal aswaati mel ni ay baat isa tamaat buñ dajewoo xaraqat day xotti al ijrama maanaa particules yi maanaam bu fekkee ay eh, baat dañoo daje ndax benn boo taxawee fenn yooxu xëy na sa voix du mën a percer bu baax ba àgg fenn fi par contre su fekkee ni nag ay mbooloo mu bari lañ ñu dajaldoo yooxoondoo seen bat day dem fu sori mu ne loolu mooy misaal bi loo xam ne benn nga di ko def bu ngeen nekkee ñu bëri di ko def ci lay gën a sori loolu rek la ci jublu moo tax mu ne day xotti baat yu bëri boo ko waxee day xotti vide bi di dem di dégg voix bi di évoluer waaye wa izan faradat su beroo xasurat day gàttañ lu an buluuxil maram walis muy jot lam doon sàkku su fekkee ni benn nit kese la bu waxee wax ji mën naa bañ a sori <clears throat> moom la ñuy wax ni benn bant neex naa damm lool waaye boo dajalee bant yu bari daja téye ko sa benn loxo bëgg leen dammandoo dina jafe kon ànd ndimbalante la waxat warada rot na fil xabari ci xadis an rasulillahi ñu jëlee ko ci yonentu yàlla bi salla yàlla na julli allahu yàlla alayhi ci moom wasallamate yàlla yàlla sellal ci moom jëlee nañ ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu ne al muminu ab julit kasirun ku bari la bi akhihi ak mbokam julit bu ande ki mbokam day gëna bari deug la ndax ben lenn lo def soko defé ak bu ngeen dé ñaar day gëna yok yu bi day gëna yok Misal ci julli manam kon julit ak mbokam julit lum def rek muy ben bu fekkee ñu bari lañ ci lañ koy gëna mën kon en réalité bo bëggé nek sax euh ko xamné da ngay def ben ñu fay la fukk wala ñu fay la 70 amal mbokk mo koy defandool moo tax mooy sa sama almuminu kathirun bi axihi qultu wax naa wa fil xabari nekk na ci ab xadis anhu bu njële ci yonente bi salla yàlla na julli allahu yàlla alayhi ci moom wasallama te yàlla na yàlla sëlmal ci moom yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax ne almuminu ab julit lil mumini ñeel ab julit kal buryaani dafa mel ni ki ab tabax al marsuus ba bu ñu rangele dégg nga bu ñu ranger ay brigam nga xam ne yashuddu day takk day dëgëral baaduhu lenn lii day dëgëral baada lenn yéen saa saa nee na jullit ak mbokkam dafa mel ni benn tabax buñ jël tabax ko teg brique yi ranger ko rangement boo xam ne buñ defee ciment ci seen diggante brique bi day jàpp brique bële noonu la jullit yi mel ci seen biir dañuy dimbalante waaw wa fil awaarif nekk na ci awaariful maarif aydan ba tey ne anna min fawaidi suxbati bokk na ci njëriñu ànd ci wàllu yàlla wal uxuwati ak mbokkoo annaha ne moom taxu day ubbi masàmmal baatini sa bët bëtu baatini maanaam euh, nit ki ni mu amee ay sens yoo xam ne yu biti la euh, dégg nga noonu la amee ay sens yoo xam ne ay sens yu biir la yu interne kon say yëg-yëgu baatin bi ne ci biir ànd ci wàllu yàlla da koy ubbi donc taftaxu day ubbi masàmmal baatini sa sensu baatini sa bënn bënnu dégg nga yu interne yi wa yaktasibu te muy fàggu al insaanu nit biha ci moom ilmal xawaadis si xam-xam yu sosu yi wala awaarid ak yu gaar yi parce que xam ilmul xawaadis mooy yi nga xam ne dañoo ñëw fekk ko fi mu sosu ni ki aalam bi univers bi univers bi ñun créé wuñ ko dañoo ñëw fekk yàlla créé ko am na yoo xam ne nag ay awaarid lañ yuy gaar univers bi yuy gaar nature bi yooyu itam au fur et à mesure ñuy dem nit ki ci la koy comprendre di ko xam mu ne nag ànd ngay ànd ak sa mbokk ci wàllu yàlla day dem ba yàlla day ubbi yooyu ngay mën di percer di xam lan moo làqu ci xam yi nga xam ne dañoo sosu am rek ak yi nga xam ne dañuy gaar mbir ne xultu maa ngi wax man mawlaana larabnu saaih wa yuridu namm na bi haza ci lii wallahu alam yàlla rek a xam ne annahu ne moom kat yeta xawwaa day dëgër nuurul firasati leeru dégg nga dégg nga yëg-yëgam al imaaniyati gay ko jóg ngëm yàlla bistim daadil baadi ci tëbbug lenn minal baadi ci lenn li ñenn ñi buñ tëbboo ci ñenn ñi day dem ba seen firaasa imaan ya day yokk seen yëg-yëgu baatin boobu day yokk firaasatu mooy jullit boo dégg mu sell jaam ko te yàlla boo xam daan la foog naa nàngam te xëy na foog naa boobu sax dina am dégg nga wala mu naan la xëy na baatu xëy na boobu mooy firaasatoom lu foog la te loolu nag yàlla lu ci bari da koy dëggal yéen sa sam ne woon mooy tudd ku len firaas ab julit te mom dafa am leer gu ko yàlla gindi mu ci wax moo tax mu ne annahu ne mom lim jublu moy dal yalla rek xam moy annahu ne mom yataqawa day dëgër nurul firasatil imaniyati leeru dégg nga euh, euh xam-xamam leeru firasa moy yeg yegum ci walu ngi yalla donc nuurul firaasati leeru yëg-yëgam al imaan yi di ko ju gëm yàlla bistim daadil baadi ci tëbbu ñenn ñi minal baadi ci ñenn ñi wa sarayaani siril baadi ak royaatu sëkkëre ñenn ñi ilal baadi jëm ci ñenn ñi is ndax min fawaidiha bokk na ci ay njëriñam maa mooy la nga xam ne yesri yi day daw minal fadili ci ku gën bàyyeekoo ci ku gën ilal mafduli jëm ci ki ñu gën mina sirri ci secret al baatin yi gay ko jug baatin alazi bi nga xam ne huwa moom muntaxal qasdi mooy daytalu la ñuy sàkku mina suxbati ci ànd ci wàllu yàlla waxaayatu suuri te mooy daytalu la ñuy wut la laaj pour am ko mu ne <clears throat> yàlla rek a xam mu ne waaye lim jublu ci wax ji mooy ne nit kii buy ànd ak mbokkam kii kuy day tëbb maanaam maanaam kii day tëbb ci kële sirru kii day daw ci sirru kële mu ne nag day dem ba firaasa imaanam boobu day gën a yokk di gën a yokk ba muy yëg ay mbir di ko perse di ko xam ci lay demee ba xam ilmul xawaadis ak awaarid mu ne ndax ki nga xamante ni moo gën ay jariñ dina jóge ci moom dem ci ki nga xam ne dañ koo gën ci ay sirru baatin yoo xam ne mooy li gën a sori ci li ñuy sàkku ci yoon nitu yàlla yi mu ne waxat xiile waxeef nañ ne manta xaqaqa ku dëggal bi xaalatin ci ab xaal ab état lam yaxlu du mucc xaadiru xaadiruhu ci xaadiruhu way teewaaleeg moom min ci xaal boobu nga toog ak nitu yàlla mu am benn xaal bu ko dal automatiquement ñi toog foofu ñépp xaal bi dana leen ko wàll <coughs> kon ànd ak nit am na am na solo euh, wa axattu naasi ki gën a suufe ci nit ñi martabatan ci daraja ci marta ba ci niveau fi maqaami soxbati ci maqaamay ànd ci wàllu yàlla lil axyaari ñeel tànneef yi mooy almuhibbu ku aji bëgg lahum ñee leen faqat kese ki gën suufee ci wàllu ànd ci wàllu yàlla mooy koo xam ne dafa bëgg dafa bëgg rek bëgg na nitu yàlla yi bëgg nañu muy àndal kese même bu fekkee deful dara mais bëgg na leen rek wa kafaahu te doy na ko euh, in lam yakun su fekkee nekkul minhum bokk ci ñoom ne annahu moom maahum mi ngi ànd ak ñoom doy na ko rek même su fekke ni maanaam bokul ci ñom bokul ci seen biir waye bëgg na leen mi ngi and ak ñom kese lool rek doy na ko sekk lool nak lutax li hadith ngir hadith bi yunus sallallahu alayhi wasallam wax ne al maru ab asjam nit dal ma man mi ngi and ak ka nga xamne ahabba bëgg na ko <coughs> yonente salaay sallam wax ne nit ku nekk ya ki nga bëgg and yowul khiyam kon kay waji su fekke ni ñim bëgg moy nit yalla yi sikki sàkk amul la shakka ni moom bu yomal xiyaame ñoom lay àndal wa fii muxtasaril ixyaa yi nekk na ci muxtasar résumé bi ñu def ci ixyaa ulumuddin baada kalaamin ci ginnaaw wax fi suxbati ci ànd ci wàllu yàlla nekk na ca maana suhu loo xam ne texte bi mu ngi nii dafa fas fashab na nga ànd ak al axyaara tànneef yi in lam takun même soo nekkul minhum di bokk ci ñoom fa anta yow daal kon maahum yaa ngi ànd ak ñoom intaha foofu la wax ci yëpp fashab àndal al axyaara tànneef yi in lam takun soo nekkul minhum di bokk ci ñoom fa anta yow daal na nga xam ne maahum yaa ngi ànd ak ñoom waaw àndal ak ñu baax ñi tànneef yi àndal ak ñoom rek même soo dul soo bokkul ci tànneef yi yow ànd nga ak ay tànneef te bu boobaa yàlla dina la yéegal ci ñoom yuridu lim ci namm mooy ishabhum na bil mahabbati ci bëgg leen wat taslimi ak ommatu ci seen wax yi bëgg leen wommatu ci li takuna ngir nga nekk maahum and ak ñom wa in lam takun donte nekko minhum di bok ci ñom lutax ndax fa innal mar as dal fa innal mar ab cam dégg nga ma man mi ngi and ak ka nga xamne ahabba ahab bëgg nako ko mu ne dal ñom su fekke ni bokko ci ñom àndal ak ñom mu lim jublu ci lolu moy nga and ak ñom ci bëgg len ak womatu ci seen mbir yi su boobaa yow di nga ànd ak ñoom ndax dañuy dañuy dëppoog yow même su fekkee ni yow bokkoo ci ñoom en tout cas bëgg nga leen te yonent saa sam ne woon na nit ku mu bëgg mook moom ñooy ànd bil jumlati buñ ko tënkee ci résumé fa fii mu xaalatatil axyaar yi nekk na ci jaxasoog tànneef yi ma ànd ak wommatu ci seen mbir yi war mahabbati ak bëgg leen nekk na ci xayrun yiw kasirun bari ànd jaxasoo ak tànneef yi waaye nag da ngay ci seen mbir bëgg leen mu ne loolu yiw wu baree baree bare ci nekk bal li fi nekk sax mooy almuxaalatatu jaxasoo aslun ab cosaan la kabirun bu màgg cosaan bu rëy la fi lintifaa ci jariñu wali xaaza looloo tax xaalu ñu wax ne innaha ne moom jaxasoo waaw moo tax mu ne aandi li ma ci jublu ay almuxaalatata mooy jaxasoo tuux nii moom daal doy na an xayriha walis leneen lu dul moom te wala yugni te du doy xayruha lenen an ha walis ko mom jaxaso mu ne daal jaxasoo ànd ci walu yàlla nenañ mom moom sax doyna bo boo moytuut waaye nag maanaam te dara munta ba te fek mukhalatatu ak ukhuwatu amut donc mom mom kesse meuna dem waye lenen munul dem sans mom waxat zukira tuddeef nañ anil awaar anil aarifi billahi ci ki xam boromam taala yàlla boromam taala yàlla mu kowe aarif billaahi boobu kan la mooy Seydi Abdourahman ibnu Muhammad al Fassi Seydi Abdourahman ibnu Muhammad al Fassi radiya yàlla na gërëm allahu yàlla anhu ci moom mu ne wax nañ ne annahu moom kat qaala dafa wax li rajulin ñeel ab waay ne ko boo xam ne waa joo xam ne min ashaabi baadil awliyaa mi ngi bokk ci saxaaba lenn ci wali yi min ahli asrihi ci ñoñ jamonoom te kat waxat raahu mbir moom gis na ko laayoo xaalitu du jaxasoog al fuqaraa taalibe yi mbokk taalibe yi mu àndal jëm ci yàlla ñu tuddee leen fuqaraaw ndax ñoom dañoo soxloo yàlla <clears throat> ne ko maada yamurukum lan la leen digal bi bihi ci moom cheikhukum seen sëriñ dafa gis waa ji du ànd ak mbokki taalibe mu ne ko yow sa sëriñ lan la la digal fa xaala mu ne ko sama sëriñ daf ma digal bi subay xati ci samas kurus walluwaay xati ak samas aliwa manam daf ko test moo motax mo waxee ko noonu maanaam sama sëriñ lim ma digal moy ma yore sama course rek nek ci sama aliwa fa qala lahu munako radi yal na gërëm allah yalla anhu ci mom munako laysat haasihi li de nekut at tariq di yoonu nit laysat haasihi li laysat haasihi at tariq nekut nitu nit yalla bi subayhati ci askurus wal wayhati akus aliwa yoonu nit yalla du ay kurus ak aliwa kesse wa innama hiya moom daal yoorunditu yàlla yi bil muxaalatati mi ngi am ci jaxasoo ak say mbokku taalibe yi ngeen bokkul jubluwaay ndax xaalit na nga jaxasoog al jasma koo xam ne dégg nga dafa gaana soo ko defee tajzam li nga gaana da lay wàll mu ne dafa am benn sëriñ tudd abdourahman ibnu mohammad alfas yi dafa wax kenn koo xam ne ci sahaabay benn wulliyu la ci wulliyu jamonoom fekk daf ko gis du jaxasoo ak kenn ci mbokku taalibe mu laaj ko na ko yow lan la leen seen sëriñ digal mu ne sama sëriñ daal li ma digal mooy ma téye sama kurus rek yore sama alliwa mu ne ko nag yoon nitu yàlla yi moom du téye ay kurus rek ak ay alliwa mu ne ko da ngay jaxasoog say mbokku taalibe mu ne ko gis nga ki jaxasoog koo xam ne dafa gaana ku am leepar bu yàggee léegi moom mu am ko parce que daf ko koy transmettre kon li lim ci jublu moy lan moy il faut nga am say mbokk talibé yo xamné amna ahwal yo xamné soko xam ne am il faut nga nga jaxasoog ñom ñu walu lako parce que bo tejo da ngay défé ni yow ya raw ñep mais bo génné ci ngay comprendre ne ndekk ci rawo gaay da nga tejju won rek motax lolu loolu jar na baye xel nit ku nekk war nga jéem am mbokk lim waxon ci début ba lu jar baye xel moy fo nga am cheikh bo xamné murabbi la wala nga am akhun murshid ñaar yoy il faut nga dajalé len parce que dina am lo xamné talibé mënu ko wax ak serignam te dina am yoo xam ne say mbokk taalibe dinañ la ci mën a gindi surtout bu fekkee ñoo la jiitu ci dara ndax li mu la fi wax rek ku la jiitu fenn moo lay wan ni ngay toogee dégg nga noonu lay demee kon nag yoon nit yàlla yi def cee bokk ginnaaw nit ki bu amee sëriñ mu am ay mbokk taalibe yoo xam ne ñoo bokk ay jubluwaay mu ànd ak ñoom ci loolu ci mahabbatu ak taslim euh, kon xam naa insha allah ñu yem foofu ba dars bi di ñëw ñu continuer waat téere bi allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatixi lima uxliq والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم